dafa am tey ci plateau bi képp ku ñëw rek yow lay attaqué. <coughs> waaw parce que <coughs> damay nooyu tuuti doot di ñëwaat ci sponsor yi. merci xam naa ne. Uh-huh. merci sax ci côté boobu. maa ngi moo tax ku ñëw rek ciblé la. paaw na li la wala. waaw nga baax ma rek ma parce que tamit xam nga ni tamit ñëpp dañuy waxante dëgg quoi. parce mm. que mais nekk nitam c'est bien. dëgg la c'est autre chose. tricher baaxul. Iba man fekkee ñoom sa ñoom dañ ñëw nekk sama civil ma ñoom du combat man li ma ñeme ñoom ñemewuñu ndeyam sax day wax ëpp naa def waaw maa ngi jégalu waaw di voilà voilà ko rek waaw li may pendre la ñoom li ñuy pendre sax bokkul dëgg la Iba waaw ñun ñun dafa am lu tax jóg c'est bien gars yi di parce que dañu quarantaine instant bi nii amutul baal amatul génn amatul pawnal instant bi dañu mais nag duñu kante ba ñun ñu bëgg quarantaine suñu bopp suñu xool yi mhm. na Sénégal yi kontaan na ñoom jamono de. Bijou damay def du wax benn affaire bu boobu laa émission bi di commencé. parce que temps yii passé dama émission bi commencé na mu yàgg. waaw parce que maanaam lu ñu a déclenché waxuñu ko li ñu a def tamit. ndax déclenché cinq émission la defal. damay remercier benn gars bu tudd waaw Mamadou waaw Mamadou. waaw Mamadou Xol Cissé da nga commencé am ay guerre léegi. Ah, ah, la ah. waaw Mamadou Sène. ndax ndax moom. dafa jël ay bourses yu bari lu plus de ay 2000 bourses boobu may ma ko. ndeysaan ah pour ma jox étudiants yi nga xam ne ni parce que ñëpp amuñu moyen quoi. oh loolu c'est bien nga xam ne ni oh, képp koo xam ne ni yow rek yow oh, waaye yaa ngi jàng amoo moyen pour jënd bourse ah waaw man naa la naa la may naa la may naa la may naa la may te bourse. parce mhm. que numéro bi après naa la ko jox. dëgg la. dégg nga le grand réalisateur de Golden. il a besoin de toi naa jox numéro bi ba pare maa ngi remercier tamit ñi nga xam ne ñoo yëkkati woon seen alal di ko may 10 000 problème ay Golden a ñam télé di xaar nag ñi doon fenn. eh fi kenn non avant de partir il faut référer. Ah, ah, ah, jàpp ci rek jàpp ci jàpp dañ la ko ñaan. ah dañ la ko ñaan. mu dal wala moom non bu mu dal fi mu toll nii ren mi dal rek. xoolal nànk nànk na dal dal bu minim. <laughs> te xam nga tax xam nga télé. Eh? télé dafa te mayu day jaxas nit àdduna waaw foo dugg ñu la xool ki sama lekk da ngay dëkk Medina nga dem mbaaw ñu la sama lekk non mais di non lii xam nga li ko dënk ko dund keroog jàll boo ko dund woon da ngay ay ay ay wa ñoo xam ne sax yi musoo leen xam ñu la eh sama lekk sama wàll mel na dix mille problème dafi engagé ay million man dama doon enquête dama doon waaw même ma soom rek balla huit cent mille huit cent mille ñu mën ko tëral deux millions bu ñu tëyee cinq millions fu ñu jëm ñu mën ay vampire ku ne di naaw ndaraan ni jóg véro yu jóg ku ne di naaw mbokk ñi yëpp njëkk ñaar ñi yëpp piis ñi yëpp kaal dem dikk maa wax loolu waaw Aïcha xoolal gaañ bind ma numéro bi si téléphone ma jox ko biisu mu jàllale tak dama joxe benn numéro boo xam ne képp ku bëgg bourse boo wootee nu jox la bourse waaw waa nga dem jàngi ñu bañ a jaar si gaal yi mm-hmm. même boo nekkee benn ko na nga wax loo xam te nit ñi amal na leen jëriñ lu am importance roñ muy wax li fi nekk. dëgg la da ngay pound rek wala nga fayal. Aïcha damay ñëw ci ajaratu daba neex la nga xool neexu la nga zappé. damay ñëw ci ajaratu daba ajaratu daba ñu gis euh, euh, euh, ñëw nga ci émission confrontation mu am ay yokkute yooyu la ci dal.